kii ñaareelu jomaay bi moom demee France xaw ma aaw bi ku ci sewoon rob bu mel ni nga ni moom xam nga. mais bañ may dëkkaleeg première dame nag defaraat sama toogaay jot na waaw bernde yaa ngi ñëw en direct. waaw yaa ngi. en direct ci màggal gi la bokk ñëwal bernde en direct bi ñoo ko fa am nag nga ñoo ko fa am nag bernde en direct ñoo ko fa am am soose ay beñe la wala ñoo ko fa am waaw fa tabaarakallaahu waaw ñoo ko fa am waaw ñoo ko fa am am na solo am na solo ñoo ko fa am ko fa am waaw koy <laughs> lii lii neex na. macha allah màggal gi dafa ala daw. waaw ah. nee na ñu arrêté de honorable ma ne. waaw tijaanu tijaanu sëñ Bamba bi kontaan kontaan naa. na. su fi tey maa ngi lekk maa ngi naan jox leen ma ma jooy kontaan naa. bi li muy xeeñ xam ngeen lool. léegi euh, maa ngi maa ngi tolloon ci baax baax yi. Mhm. dafa am solo en attendant ngeen jëfandikoo ci bañ bi. Mhm. xam nga alaaji wax na dëgg bés bi li laaj mooy wane baax baax mbégte. maanaam mbégte bég mais lii dafa neex xam nga nga ngay def émission nit ñi taxaw seen balcon yi di la tàllal loxo di la di la wax ne la ñu ngi leen di seetaan loolu dafa rëy yéen waa Touba wax dëgg yàlla 2A TV amul seen fay waaye bu ñu dellu siwaate ci bis bi xam nga soxna jaara da ngaa laal lu am solo muy taxawaayu kilifa yi dafa am solo le président de la république ñëw na fi ñëwaat fi te ñëwin bu ne rek gis nga ni muy wuteeg sa maanaam beneen bi le premier ministre ñëw na fi ñëwaat fi mais yemu ci dafa engagé tout le gouvernement. tous les secteurs muy santé sécurité ak lu ñu ci mënti doon lépp loo xamante ne dafay laal màggal gi dañ leen engagé man bi ñuy ñëw rek ñu ngi gis ay ñoo xamante ne ay fajkat la gaare seen ambulance ci benn taatu pont lal seen basang ak ak gendarme yi toog foofu teg seen ay garab mu leer na ni fi mu toll nii ils en alerte kon loolu lu jara lu jara wane la lu jara félicité la da amaana taxawaay boobu bu ko ko yellamaloon jafe-jafe mën na am ci mën na am ci màggal gi waaye ndokk ba nga xamante ne ñoom xam nañ ñu leen li dox seen digganteeg sëriñ bi te ki démb rek la ne ko lépp noo sumb da nga ma gis ci sa ginnaaw loolu sëñ taxaa moo ko wax le président de la république ne ko sama dëkk bii lépp loo ci nar rek maa ngi ci sa ginnaaw te loolu wax dëgg yàlla nag ku mu doyul dara dootu la doy nag waaw dara dootu la doy comme honorable nee na nan wax ci mbégte mi bëgguma xos yi ñeent ñeent. waaw nañ ko denc ba ñibbi bu ñibbee. bu ñibbee ñu ñu a di toroxal seytaane. demee ba dugg Rufisque. ah ñu ne ñu commencé mais comme fii nag comme fii ay mbégte la ñu wax ne mbég bi yëngu. nañu kontaan kontaan continué. voilà 18 safar la ñu wax. Euh, màggalu Cheikh Bamba gi màggalu màggalu Cheikh Bamba gi bëgguñ ci leen lu dul jàmm ak salaam bëgguñ ci lu dul mbégte waaye bëgguñ ci lu dul berne jaar ñi nga xam ne fekk nañu en direct mm-hmm. kon mbégte rek la ñuy am ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi kontaanaat bu baax a baax jaaraa ngay lekk indirect 2A TV lii yéen rek a ko mën mbégte la jaara macha allah donc jéego yi nga xamante ne également état bi def na ko pour man jaara dañ koo war a di ko fësal ndax nit ku def li mu war a def waroo ko euh, félicité waaye danga ko war a ñaax mu ngir bu déwénee li mu def ren mu mën a def mu mën a defaat li nga xamante ne moo ëpp doole jaaraa ngi lekk en direct. yóbbante Mbaye Fall nii laa la bëgg a wax Mbaye Fall nee na Ami Cissé veux-tu ngir borom màggal gi. Mbaye Fall xam nga su ko defee Mbaye Fall wax nañu soo bët. saa yaram daw na. dañ uh, yebal. parce que boo ne borom màggal gi rek. laa bëgg a tàgg ci barke ak teraanga yi ma fi am rek mën naa wax waaw te duma ko tey. soo ma wóoloo rek Mbaye rek bàyyi ko sama loxo ma dox ko wax ko. fi ma jaaree dafa garaaw. ci barke borom màggal gi parce que Tijaanu Bamba toog ñëw fii ci Touba ñu di ko teral nga ne ma voiture ma bousee ndax borom màggal gi mhm. lii chantage la mu may chantage mu may chantage chantage nga yaa ngi may chantage. ba nga nekk chantage moom ñu bàyyi ko comme da lay chantage. moom la ñu ko moo tax ma ne chantage kii de nee na Diarra ak Amina lekk leen indi Touba. <laughs> ak liggéey. ak liggéey de ñu ngi liggéey lu am jom la. waaw en daal soose. Euh, sant yàlla daal boo déggee ni yii yëpp dafa am. kaaraange daa am. sécurité dafa am. Mm-hmm. xëj na nag mënuñ ginnaaw sénégalais bu nañu teg fab takk der. waaw matukaay yi nga xam ne daal kilifa yi jël nañ ko waaw bu ko defee nag ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy rafetlu di amuk euh, mbégte màggal Tuubaa gi daal ca dëgg-dëgg ah sant yàlla rek waaw bu defee nag ñun daal xam nañ ne daal kilifa yi am nañu mbégte ci ñoom défilé bi nga xam ne tamit am na fi kilifa yi ñëw fi tamit euh, rafetlu nañu ko matukaay yi nga xam ne dañ koo jël nag waa Tuubaa ci boppam tamit. nañ ci taxaw képp koo xam ne dafa nekk fii di saboté ci wàllu ndox mi wala wàllu courant bi ah ñooñu dañ leen di dénoncé ñi nga xam ne dañ fay nekk di def ay mbirum agression wala di jëfandikoo sinébar nga xam ne borom dëkk bi da koy bañ kooku it il faut les dénoncer sénégalais nag moo moo moo tàmmoo du boolee ñëg yi ñu wàññi am na ci yenn ci ay gox yoo xam ne ba léegi ne jaaykat yaa ngi siisu. nañuy waaw Amina Cissé nee na day leen boole. leen boole dañ dara du la ci fekk waaw bu ko defee nag en tout cas daal euh, autorité daal matukaay yi nga xam ne jël nañ ko ci màggalu ren gii. Uh-huh. waaw vraiment sant yàlla soose wax na ko nit ñi bi ñuy xoolal damaa julli tàkkusaan ba pare doog a départ. Uh-huh. waaw boo ñëwee ba biir Touba nag ah embouteillage boobu nag moom màkka sax boo fa demee di ko fa fekk. Uh-huh. ko weddi jugeel mun naa ngeen jëm euh, euh, Arafat boo leen jugee Arafat ngeen dem Musdalifa jóge foofu war a delluwaat ca xaram ba dem sànni ji jamra la fa nekk ci ay doomu aadama oto yi dañ koo bañ ba oto yooyu sax oto amu fa da ngay dox lépp dox la waaw bu ko defee nag boo xasee ba dugg ci dëkk bi embouteillage yi di am nii loolu moom lu mënul ñàkk la foo ay million ngi millions ngi doomu aadama daje bu waa Touba yi wàccul woon lal yi jox gan yi kon mu demee neneen waaw bu ko defee nag loolu moom nekk na loo xamante ne nii mënul ñàkk waaye daal ni ñu organiser yoon bi ba ni ñu yegsee fii man ñeenti nit ñi ci wax ne dañoo faatu sax daf ma xaw a def mbetteel waaw waaye nag bon ku ci nekk rek ak yàlla fan la voilà am na koo xam ne nag moom nee na benn Dakar mu Dikk daal da koo laal ci tànk ñu ngi koy bind sànq ba léegi waaw bu ko defee ñi koy mastaw bu baax a baax kilifay Dakar Dem Dikk yi tamit bu dee mën na ñoo saisir ñu waaye ñu xam nga ne amuñu benn yéene fekk ni toog mm-hmm. ñu jaar ci tànkam wala dara nattu la bon bu ko defee nag euh, ñu xamee ko noonu en tout cas daal sécurité bi nga xam ne gis nañ ko fii daal mm-hmm. vraiment euh, euh, Eh, ñëpp ko rafetlu kàddu yi nga xam ne sëñ Mountakha yëkkati na ko soose ay kilifa même bu dee yaa ca gën a nekk xale am na yoo xam ne du am ba pare nga dem ca penc ma ne lii ak lii ak lii waaye sëñ Mountakha kilifa la sëñ Mountakha responsable sëñ Mountakha c'est pas pour ñu ne képp ku toogati ci jal bi bu ñuy ubbi nañ la wooyee Serigne Touba sëñ Mountakha yàlla na fa yàgg te sëriñ Touba sëñ Sidi Maxtaar yàlla yàlla yokk leeram Serigne Touba sëñ Baara Falilu yàlla yàlla yokk leeram ñu ne dee leen wax sëriñ Touba sëñ Muntaxa la sabab lu ni mel nag mooy moom mooy sëñ Touba ci kaw suuf waaye gis nga euh, soose léegi-léegi ay nit ne ci xeex te boo nekkee ci xeex koo yaakaar ne war na ca mën dara rek yow di nga dem ca moom te boo demee ca moom it doo bëgg mu tëddee njaaxaanaay da ngay bëgg mu ñëw faral la heure bii daaw ñëwoon nañ fi waaw bii daaw ñëwoon nañ moo tax yàlla rek moom mooy yàlla waaye moo tax sëñ Muntaxa it du jàkkaarloo kenn ba sëgg boo ñëwee dana la wax wax joo xam ni sëñ Muntaxa day wax ba wax la ay prérogative am wax la boo wax la ne la lii ma leen di wax sax waruma leen koon a wax ndax moom kat nee naa ko nangam ak nangam ak nangam fii ak fii ak fii nag man laa mën a yem waaw bu ko defee nag ñu yem foofu waaye boo déggee Ousmane Sonko ne yaa a un contrat moral qui nous lie avec Touba français la làkk waaye olof la de déggoo ma de Ousmane Sonko wax barki Dembo Ndiaye ci kanamu jëmu ju tedd ji xamal senegal yépp ne y' un contrat moral buy dox ci digganteem ak waa Touba bu dul dara nag njabootu sëñ Touba gi nag sëñ Cheikh Khady ñu ngi koy nuyu ñu ngi nuyu baax Cheikh Abdou bu daaru Muxti di nuyu tamit sëñ Cheikh Coro di nuyu tamit ñu bëree bari ñoo xam ne ay doomu sëñ Touba ay sëriñ Touba ak ay cheikh yoo xam ne ñu ngi nekk ci dëkk bii ah ca dëgg-dëgg de yi ña doon jàmm bañ ca tolloo lañ. waaw attention bu ko defee nag ñun ñëpp dañoo ànd ñëw toog Habib si wax dégg nga euh, euh, euh, ay dëmbooj wax sëñ bi tontu ñu ne képp koo xam ne koo ci ñii sëñ bi nee na nga génn ba ca estafam ñu ne lu fi waay yor portable na nga ko denc ba dara resolutul la mu doon jox Ousmane am kenn ko déclenché téléphone am waaw moo tax ma ubbee ma ne doo ànd ak i mbooloo même boo ca nekkee xale ba pare génn wax ne lii ak lii ak lii ak lii ak waaye daal xam naa ne daal Ousmane ku reconnaissant. macha allah kafe waaw kafe gee di kaw bisimilah bisimilah. bisimilah xelil xelil xelil jox xelil jox leen. xelil jox leen am na solo xelil jox leen dégg bu ko defee nag. waaw lii moom yàgg na fi bàyyi baax. ñuy sant bu wér. Mhm. waaw gërëm leen bu baax. am na solo ñu leen di jaajëfal bu baax a baax. macha allah berne yi bari na. berne en ah, na solo ñoo am. moo neex nag. berne en direct lu dàq deux ans. benn en direct kan moo ko fa am. honorable merci beaucoup yàlla fayal ko am 200 <laughs> TV gi nag. Euh, ami. Mhm. bu ko defee rek kafe gi képp koo xamante ni suñu mbokku diaspora yi nga xamante ni saa su nekk dañuy topp ci 2A TV. dëgg yàlla ñi nga xam ne ci euh, diaspora bi bëggoon ñëw ci màggal gi. te ndeysaan mu ñu ñëw mhm. di la ne café gi may na yéen nañ leen ko may. may nañ leen ko waaw may nañ leen koy ah, bu ko defee rek voilà di leen wax que ni balaa déwén incha allah màggalu déwén yàlla na leen fekk seen réew. lépp ah. yemb koppax yi yemb xewal yi yemb lépp yemb mm-hmm. ba ngeen mën na ñëw fekk ñu si euh, fii ngir mm-hmm. euh, mën a teewee màggal comme nu ñu koy teewee jamono ji neex na trop su ma waxee dëgg rek màggal gi neex na ma ñam kafe gi bu ma sañoon jaar chaque trois mois day am man man xalif général des mourides euh, sëñ Mountakha Mbacké mu sell mi mm-hmm. su ma sañoon daal sëñ bi ñu xool ñu xool nu ñuy négocier chaque ñetti weer ñu ñëw Touba màggal. foo yefaloo nga bëgg yow. waaw foo yefaloo laa bëgg jaara. <laughs> Ami Cissé fu mu yefaloo la bëgg. fu ma yefaloo laa bëgg honorable. ku ko yefal la man man fekk benn day jeexul du ma ñibbi. ñu ngi leen di yàlla daal même deux mois bu ñibbee du ma ñibbi. kañ ngay ñibbi yow. fekk benn day jeexul. Ami Cissé di la tëj baay. benn day jeex ma doog bismillah ñun daal ñu ngi leen di ñaanal yàlla heure bi heure. ngeen nekk seen biir néegu sëy. amiin yaa ci baati. amiin ndax xont mhm. da dul lekk dong. bu dee lekk dong am na ci seen i kër ndey am na ci seen i kër baay. <laughs> dégg moo ma ne yàlla xéwalee ab góor gu tabe. Mhm. amiin amiin góor gu am doole. góor gu am fulla amiin yaa rabbi góor gu am fayda amiin góor goo xam ne bu nga am fukki at ak juróom-ñett nekk responsable mm-hmm. dëgg la am lu ëpp juróom fukki jàpp juróom benn fukki at laa lay wax ne nekk gone mm-hmm. yëfu gone rek ngay def dëgg la ba tax nag ñun ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla daal heure bi déwén sama amina yii mm-hmm. ñoom ñaar ak sama kinémee ak sama jaaram yi jaaram ndaw dégg ak ak ñaari ngóone yàlla dénk leen ay boroomi kër. amiin amiin yaa leen dénkee boroomi kër bu leen ñu wor bu leen dem. doo leen liggéey di dem di ñëw leen di takk rek ñu ne bàyyi nañ. voilà monsieur nee na bu ma ñëwati jaaru jaar ak sëy yombul. jaaro bi. non non du ñu ah, bàyyi mais dinañ jël congé tamit toppatoo borom kër gi. non non congé bi waaw. di ko maye mu xëy na la honorable ma mata sëy ba ah, képp ku leen takk boo leen dawalee une semaine nañu muse nee nañu bàyyi ta sëy ba boo leen bañee ne doo leen génn ci sëy ba xam ne yéen ay complice ngeen te ay workat ngeen te mu ne la te mu ne la nit ñi dafa xaw a on est très ñu bàyyi. ñun ñoo ngi nii di sëy sama borom kër bëggul fukki at ak fukki at ak juróom-ñett a ngi nii soose. waaw ñun ñu ngi sëy te ñu ci métier bi. waaye ni ngi muñ da ngeen muñ. Ah, bu boobaa nag ñu jël borom kër gi la ñuy topp lu dëgg aj kii ah, ami ah, su boobaa nag honorable yaay suñu papa yaay suñu papa loolu Sénégal bi yëpp seedda nañu ko waaye nag boo ñu xasee ba mayee nag waaw waaw waaw dëgg fa yàlla bu boobaam nag dañuy bàyyi borom kër gi rek décider lu mu bëgg rek ñu topp ko ca wóolu na ko honorable